ci dañ dañ leen ci euh, defal seen photo wala seen soppe dugalal leen son bi incha allahu rabbi Moustapha Mbaye aji Moustapha borom tàkkusaanu naj bi ah gudd aj Moustapha Allah min jamiil baraya be neex rek kenn du loolu Abiba dama dama dama tëdd guddi aj bay déglu Moustapha Allah min jamiil baraya bi ndeysaan sama nelaw yëpp jeex. wala maa nelaw ñoom laa la ak ñu koy woyee. wallaay ndeysaan jigéenu jannatu yi. waa abi dama ko war a am. <laughs> sama modérateur jinne bi. métro ah? am benn modérateur jinne. <laughs> minal jinnati woon naas. waaw moo ñu ci jàppale mais bëgg nañu. maa ngi nii di ko déglu nii. ndeysaan ci YouTube bi naa la ko jox. te boo ko dooree tàkkusaanu nabi mayal ma ko jigéenu guddi aljuma yi jigéen ñu tàkkusaanu nabi yi. wallaay wallaay. ñoo jàng wurusu marjaan. Habib yaa suñu modérateur yi ñoo ci jàpp. tëdd hmm. naa nelaw. mënumaa hmm. nelaw. ndeysaan. ma daal di ma daal di déglu bu soxlaa ñu jëme El Baraya bi ndeysaan sama nelaw yëpp jeex. ndeysaan wallaay wallaay wallaay ndeysaan dafa neex. dama xel dem ci yéen ci yàlla Muhammad. sallallahu alayhi wa sallam ndeysaan ndeysaan. wa yow ma gis ne li fi see faari biir juróomi. wallaay wallaay ndeysaan. guddi gi nga ciy dëggal nit ñi yàlla na yàlla dëggal leen. allahumma amiin ñu bokk yu bi yëpp. incha allah man xaw ma ne toog di animé ñu lay déglu nii la neexee. <laughs> dama lay déglu di kontaan ngay teg saam. dé non mais dafa neex. moo tax nee naa nit ñi nit ñi des fois nag su ma paree rek dama dégluwaat sama bopp des fois may ree. man man man guddi àjjuma gi dama lay kar bu ma bëggee déglu way ñëw. sama bopp. wallaay ñëw gën a bég nag wallahi ñoo gën franchement borom baax nga franchement parler. yàlla yàlla sàmm la. amiin yaa rabbal alamin amiin amiin xaaj Moustapha. lu guddi àjjuma gi moom xam naa incha allah dinañ ko dinañ ko. dinañ ko def te loolu dafay neex incha allah. te li ma ci yëg. maa ngi lii ci commentaire yi ñu ngi bu naan Awa Diallo nee na Moustapha Mbaye maa ngi ziar. xoolal say soppe noo nga fi nekk nag. ñoom Bintu Tere Esak. aw Awa Diallo ñoom Maysaat ñoom Xaaji Malick da lay déglu nag ndeysaan macha allah. wallaay baa ngi nuyu ñoom Awa Diallo. ndeysaan ñoom Malick Pape Malick Diop. Pape Malick waa Thiaroye wallaay man ak ñoom nii lan nag. waaw. billaay ndeysaan. wallaay. ñoom ñëpp oh. maa ngi leen di ñu ngi dund ñu ngi dund ak yow mbégte bi. tarawakal macha allah. wallaay ñu ngi dund ak yow bi Khadija. ndeysaan Khadija. waaw waaw waaw dëgg la ah, Khadija ndeysaan. Aminata Mbaye ci moom sama doom Mbaye la. dëgg la Aminata Mbaye. taalibe Mame Mansour ndeysaan dëgg loolu. ah ñoom ñëpp ci commentaire yi. Eh. ñu seen xol yaa ngi seet. wallaahi wallaahi wallaahi ñëpp kontaan di dund yonent yàlla Muhammad sallallahu ngi leen di ziar ñoom ñëpp di leen wax ni nii la de. di dëgg la. waaw yi bari ci guddi. wallaahi wallaahi incha allah fukki yoon. ndeysaan incha allah incha allah. rawatina guddi àjjuma gi nga xam ni. Mm-hmm. Ah, ci la ko yàlla di jox sor waxa ku teg ku julli ci moom mu fay la. Mm-hmm. dëgg la kon maa ngi allah ñoo gën a kontaan parce que lii tamit rëyaat na ci ñun trop. wax dëgg yàlla bëgg nañu bëgg nañu ci lool lool. waaw ya, macha allah di la wax ni nag sa dabatun ja ja nga defoon ak Moustapha. waaw daba ba waaji naa ya, lubb yi dégg naa lubb ji yaa ko wax ka ah. tas géew ni lubb dooma dimbali wayaat ma loolu defal ma defal wayal ma ci tuuti wayal ma ci tuuti ودوني من خيري في دبة وما كنتم دبة لولا هؤلاء أربع من خير إرمي ودبة أمها أم دبة لبنا هؤلاء أربع من خير دبت دبت دبت دبت دبت أمهاتكم فليقل دساتيره هؤلاء أربع من غير سبري لي لي لي والله والله والله والله والله والله umaymatan barratan bayda wa aatikatan arwa ashiqaa ñooñu dey abdillahi déggal loolu mais Moustapha gars yi lan lan réclamé sama diwa ak yow ci guddi aljuma mais isa xam nga dara xam nga man daaw ma déglu way mais cinq ans yi ñu génn wax ma naan naa way de mais xam naa si tout grâce ak Hadji Malick euh, il faut rek ñu def benn duo boo xamante ni. incha allah parce que xam nga yow de yow waykat nga te da ngay déglu way. man na du ma woykat mais nag sama baat naqari na naqari goo xamante ni mais xam naa woy xam goo xamante ni boo woyalu naqari xam naa. da nga euh, di da nga yàgg ci ci waaw wallaay wallaay wallaay wallaay ndeysaan wallaay. waay woyee xam nga ko bu waay waxee xam nga ko. wallaay wallaay wallaay wallaay. nga xam nga euh, way euh, sama nijaay Modou Buri kenn du way waaye boo daajee eh, air ñu ñu topp sa ginnaaw dar la jàppale la ci eh, air bi ba mu neex bu guddeeg si ëskay ñooñu ñoo hmm. ñoo ñoo ñoo jara ndeysaan ndeysaan ndeysaan am na solo nag togg diyoo nag togg diyoo bi ba mu ñor ñu génne ko def lu rafet insha allahu rabbi gis nañ fi gis nañ fi gis nañ fi mbappek messi gis nañ fi neymar messi ah <laughs> du dëgg di leen di leen di leen guddi ajuma incha allah. <laughs> incha allah yàlla nañu ko yàlla defal mais kontaan nañu nag. wallahi bég nañu bég nañu Moustapha wallahi bég nañu. bég nañu bég nañu. di leen bégee bu baax a baax a baax. wallahi ñoo raw ñoo la ñoo la ñoo lay bégee. di kontaan ci ñoom bu baax. macha allah ñoo gën a kontaan ndeysaan. bég naa bu baax. baax na ñoo gën a kontaan jërëjëf Haji. Mbaye Guèye Malick Guèye wallaay wallaay ñoo ñuy wéttali fii ay góor yu baax lañu ay jigéen yu baax ay góor yu baax. wallaay waaw billaay ay ay jàmbaar lan daal macha allah daal. bu mu xëy di saar ak ñoom ñëpp. dégg naa ndeysaan nga noonu. jërëjëf. déet non dama koy andi yow dama koo teg rek nga dugg looloo la yee. jigéen jigéenu guddi àjjuma yeeg tàkkusaanu nabi laa ko bëgg may nii te dama leen ciy préparer ay affiche ci 8 mars bi. incha allah te dinaa la ko jox nag dinaa la ko joxaale allah dama la koy jox. jeex na jërëjëf incha allah merci beaucoup jërëjëf. macha allah rabbi mu nekkoon Xaaji Moustapha ah. une heure du matin Astou Thiam maa ngi maa ngi jégalu ah. Moustapha kontaan naa kontaan naa. jeeni jannat yéen yaa ngi lay xaar. jigéenu guddi aljuma takkusaanu nabi. wala jigéen rafet rafet kaar. Jingira fete karango uru sumarjan Tenal la bay fato eh, Tenal la bay fato Tëgg jot na tàggoo jot na ndeysaan day na man nanu la Abi jural nanu doom doom dootu mel ni moom ba mukk mukk Abidjan jeudi c'est le 9 mars mais ba tey